edi euh, fof mo haalde wondiraɓen fulɓe ɗumen hanndi ko euh, ñalawma gacci ganduɗa o hooreji leydi mbiteɗo makky sall suɓa e dow teddungal wi en faw ɗum sénégal en gakkino nguru sénégal en fijiri sénégal saabu yimɓe majjani ko woni koye wona laawol wona ndimaago wona haqqillantagal dama wax ci pël ba su gàccee la ñuy dund ndax kenn réerewul mbir ni Macky lu muy doxal nii il fait du Macky maanaam ci li mu newoon da nekk ba tey le 15 février ba mun ba conseil constitutionnel waxee ne woon naa leen man wóoluwuma Macky Sall pour mu organiser élection yi bu ñu yeboo xalaat keneen ba mu génnee démb li mu wax ci mbirum dialogue bi jàpp naa ni senegal yépp am mbetteel ndax conseil constitutionnel daf ko tënk te du conseil constitutionnel moo ko tënk conseil constitutionnel dafa fàttali constitution Sénégal wax tënk ko moom ba muy aj élection yi sukkandiku simplement ci benn proposition bu parlement bi jot te parlement bi àddugu ci mu aj élection yi kooku pour ajji élection yi mu wéy waroon na exécuter décision conseil constitutionnel waaye dafa bañ dialogue bu muy laajte bu muy woote du rek ngir jàpp date ngir aussi xool moom nu muy wéyalee mandaam au-delà du 2 avril bu ngeen déggee li mu gën a tudd démb ci discours am bi mooy article 36 2 constitution bi nga xam ne day ne tant que tànn guñu ku koy wuutu moom ba installé kooku moom dina wéyal kiyoom te nee na loolu waxtaan bi def ci war a am solo mooy ñaari tomb yi mu teg ci waxtaan bi beneen bi mooy amnistie amnistie mooy lan mooy mbirum lépp lu fi xew ci réew mi te nga xam ne ay njombe yu dul jeex ñu wax ko pétrole bi gaz bi rapportu Covid bi ñi fi dee ñoo ñëpp nañ ko naxasaay pour lan pour moom mu mun a am jàmm dem ndax même moom bu demee ku ko wuutu war na mën a bàyyi prisonnier politique yi nga xam ne ak yeneen prisonniers yi nga xam ne du ñu ay prisonnier nag am nañ ci ñoo xam ne nag ay vrai casseur lañu dañu def ay njombe kooku ku ko wuutu war na organiser dialogue xool ci yan anam la ñuy libérer ñi nga xam ne par centaine ci conditions yu atroce bu fekkoon dafa am yërmande du démb lay découvrir ni am na ay prisonniers je voudrais dire très rapidement que le président de la République est dans un jeu déjà connu et il ne trompe plus personne et je m'étonne même que des ambassades puissent donner crédibilité à son appel qui est un véritable appel trompeur, une véritable diversion. Ce qu'on attend de Macky Sall, c'est dans le cadre de la constitution actuelle qui n'a pas changé d'un iota, c'est d'organiser le plus rapidement possible en fixant la date. Toutes les conditions sont réunies. Fixer la date de l'élection présidentielle comme lui enjoint le Conseil constitutionnel le 15 février. Il s'y refuse et veut organiser au contraire un dialogue qui lui permettra de changer le processus non seulement changer le processus, mais même temps de valider le fait que malgré qu'il ait donné l'impression de répéter qu'il quittera le 2 avril, il l'a pas de manière explicite. Il dit que le 2 avril, il y a l'article 36.2 de la Constitution sur lequel il faut qu'on discute lors son fameux dialogue pour lui permettre éventuellement que les gens lui disent, les tra communicateurs traditionnels, les religieux, les recalés qui vont, qu'il va inviter et qui constitueront, qui verront en lui une planche de salut, mais qui seront aussi une planche de salut pour lui. Pour que tous ces gens lui disent, vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus apte à continuer la transition. Et donc l'article 36.2 euh, de la Constitution nous permet de, de l'envisager. Allons voir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui est plus ridicule de dire que allons voir le Conseil constitutionnel après notre dialogue alors qu'il refuse et qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel du 15 février Qu'est-ce qui est plus ridicule et dérisoire de dire nous irons voir le Conseil constitutionnel alors qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel Ce président n'est pas sérieux. Et c'est pourquoi je pense plus que jamais que c'est des manifestations populaires. C'est le refus de la population d'obéir et de suivre ces injonctions qui vont le faire partir. Parce qu'il a avec lui une petite clique de personnes qui sont prêtes à le suivre et à mener le Sénégal jusque dans les profondeurs qu'ont traversé certains pays africains. C'est pourquoi nous disons non au dialogue, dialogue, mais nous disons oui à un plan d'action que certains de mes amis ont déjà décliné sur lesquels je ne reviendrai pas. Nous organiserons notre propre dialogue Le dimanche, nous ferons des actions et toutes les actions qui ont été appelées cet après-midi, demain, par d'autres plateformes, nous les soutenons et nous les encourageons. Vive le peuple sénégalais. Merci. Sénégal maa ngi leen di nuyu mbokki presse bi maa nuyu bu baax i tamit kàddu yu fi jug yépp leeral na ñun suñu position en tant que candidate à l'élection présidentielle et membre du fonds euh, pour les candidats à cette élection présidentielle muy FC 25 ginnaaw bi ñu waxtaanee ci suñu biir dañoo décider ne ñun benn kàdd la ñu am moom mooy demuñu ci euh, invitation bi nga xamante ne président Macky Sall nee na moom daf koy woote li tax duñu ci dem leer na ndaxte jàpp nañu daf ñoo woo pour wane ne wala jéem a wane ne opposition bi juboowut te opposition bi àndut moo tax ñun dañoo àndandoo ne ko déet dañoo àndandoo ci benn say nekko ko déedéet monsieur le président Macky li nga ñu woo ak ni nga ñu ci woowee mënuñu la cee wuyu ndaxte nag cër biñ la jox respect biñ la jox en tant que chef de l'État et président de la République du Sénégal ñi ngi ñaan nga delloo ñu ko toogalan ak candidat yi nga xamante ne ñoom la conseil constitutionnel tànn décider finalement ne ñi ñooy les dix-neuf candidats yi war a dem élection présidentielle ngeen waxtaanee benn poñ bi nga xam ne loolu rek moo la fi dese muy la date de l'élection présidentielle monsieur le président Macky Sall boo bëggoon jàmm def nga ko ndaxte loolu yomb na boo bëggoon jàmm di nga woote ci fixé dat date boobu ñun dem nañu ba ne la bu la neexee nga bañ koo waxtaan ak ñun bu la neexee nga toog sa kër toog sa digg pale fixé date jàpp date ne ñu bis bii la à condition que mu nekk avant le 2 avril dañ la koy nangul bi ginnaaw bi loolu jàllee ñun amuñu lu ñuy waxtaan ak yow mbir moomu leer na waxoon nañ la ko keroog wax nañ ko ci ay communiqué te dinañ ko waxaat tey le seul dialogue qui vaut te ñun dialogue boobu la ñu gëm te dinañ ko def le front des candidats à l'élection présidentielle va tenir le vrai dialogue c'est le dialogue avec le peuple sénégalais et incha allahu rabi pendant que yaa ngi jéem a wane une opposition au sein de l'opposition nous nous allons montrer une unité nationale